maire am nga ndam ndax lii nii rek ndam la kon nag jaara boot le maire di wax nag di def appel à tous les nag du Sénégal parce lii man dama naan c'est première fii ci Mbàkke Bawol te su ma neexee tàllal sama loxo ndax maa ko fiy door a gis kon nag may woo maire Sénégal yëpp ñu roy ci monsieur le maire Gallo Ba mii kii kat lam ñu digoon ñëpp démb wax dëgg fa yàlla def na ko bokkut ak maire yi nga xam ne dañ lay dig ren boo dajeeg ñoom ëllëg ñu di la jàdd wala ñu lay wax safaan nga déedéet lépp loo ñu mës a promettre rek bi mu njëkk a def mu xam ne loolu la ab commune soxla muy ca mairie Mbacke bee ba fa toogee premier acte bi mu def muy état civil bu ku ne xam na ne toog deux mois am kayit da jaabante maire ba sonn wala ñu dem ñu defaral la faux papier foo dem ñu ne la sa kayit gi baaxul kon nag mu ñëw nomeel ñu un officier d'état civil. ma koy nuyu au passage nag ndax bu ndëg lekkee arom na ko gërëme cooy muy sama borom kër Mamadou Moustapha Dieng monsieur le maire Gallo Ba ñu dellu nga ñëw la nga digoon waa Daaru muy tali Daaru bi nga taxaw ca bam mat ñuy remercier aussi au passage le ministre Samba Ndiobène Kane mi ko àndaloon ak honorable Matar Diop ñu jógee ci loolu nga indil ñu teraanga yii macha ku ne xam na ne Mbàkke dafa tilim nawet nga indil ñu ak oto oto oto ramassage d'ordures yi ak oto vidange yi nga xam ne Mbàkke moom ku fi duggoon duñu naw waaye lii ñu gis rek dal na xel kon nag merci encore may lancé appel nag sama mbokku jigéen ñi ndax ku ne xam na ni fii jataay bi ñu fi teew ñëpp ay jigéen la ñu honoré ñu nag muy candidature bii nga xam ne moom lañ ma def muy candidature pour députation yi nga xam ne pour la liste Benno man damay jëlaat lépp lépp delloo ko les femmes du département de Mbacké kon ñu leen takkuwaat gën a jàppoo boole suñu doole boole suñu lépp ba au soir du 31 ndam li ñuy séntu ñu mën koo am ndax demal département bi kat demal département bi xam naa nag dina xew demal département bi ndamal ñëpp la ndamal ñëpp la bés bu ñu gañe woon cër bu ñu war a son excellence jox ñu ko dinañ ko am te du doon dara bu boobaa suñuy ministre dina yokk suñuy DG dina yokk suñuy PCA PCA dina yokk jeunesse bi dinañ ci gis seen bopp femmes yi dinañ ci gis seen bopp à travers financement. Euh, nañu wàcc di di jël nuyu bi monsieur le Ba di di teg sëñ Galas Matar Diop le conseil municipal ak waa Mbacké yëpp yëpp di fi nekk. tey dama ñëw pour jàppale sama doomu ndey Galo euh, biñ ko falee dañoo wax waxtaan boo xam ne lu jëmale kanam Mbàkke ci lañ initié def lii ngeen gis nii mooy oto mbalit yi nga xamante pour mbag jëm ci kanam am vraiment en cadre de vie très sain ndax euh, aduna solo mooy le cadre de vie te cadre bi boo ko waxee wax nga santé wax nga salubrité c'est extrêmement important donc man sama yéene ci Mbàkke sama yéene ci Mbàkke weesu na lii euh, man ak monsieur le maire comme li ma ko waxoon ca njëlbeen nga lépp lu ma ko mën jàppale pour Mbàkke avancer Mbàkke jëm kanam parce que man doomu dëkk bi laa comme moom dinañ ci ànd liggéey ko pour Mbàkke mu dëkk ci tëkk yi nga xam ne moom leen gën a respecté ci àdduna donc dans ce cadre lépp luñ mën def dans tous les nañ ko def pour Mbacké jëm kanam am ay projet yoo xam ne mi ngi suñu kanam dinañ ci liggéey man ak moom ak conseil municipal bi mooy lu mel ne la décentralisation lu mel ne euh, euh, les projet sur la coopération internationale ak sur la santé dinañ ci ànd liggéey ci bu baax monsieur le maire daal man li ma bëgg nga xam mooy que ne mën ak yow dinañu ànd liggéey Mbacké ak doomu Mbacké yëpp loxo Mbàkke nag liggéey bi kenn du ma ci ëppale dinaa ci dugal sama loxo ba ñëpp xam ne def naa ko incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. ñuy wax au nom du conseil municipal. ak au nom des alliés. parce que danoo nekk ci benn groupe boo xam ne bii tey jii ci Benno Bokk Yaakaar muy parti yi nga xam ni ñooy jàppale le président de la république di jàppale ki nga xam ni itam mooy député yi nga xam ni ñoo fi nekk. ñu war leen ñu nekk tey jii di def événement xam ne bii conseil municipal bu Mbacké désigné ma pour que ñu sargal waa Mbacké parce que lii day loo xam ne bii dafay manqué woon lool xaru kanam bu Mbacké dafa demoon ba nga xam ne fi mu toll nii jéggi na dayoo tey jii ñu am benn responsable boo xam ne bii mooy le maire DG Gallo Ba ñu ànd ak moom. nekk benn sey pour defar Mbacké loolu nag bu fekkee lii indi na ko muy li jëm ci affaire mbalit bi mu jëm ci affaire vidange yi ñu war a dem ci loo xam ne lii dem leneen muy ay projet yoo xam ni dañ koo nas muy stade bi nga xam ne bii dañ koo war a inauguré ci fan yii muy ay tali yoo xam dañ ko war a defar ñu am ay lampe yoo xam dañ ko war a taxawal muy mbalit moo xam ne dañ ko war a génn ci biir dëkk bi. ñu ni kooku ku jar a jàppale la dama bëgg gàllo ba ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a teew fi nag am lu ñu jëm ci suñu kanam ci lu yàggul tuuti ci tàmbali bi la nekk mooy jëm ci am ay élections législatives yoo xam ne am na lu ñu ci soxla wala am na loo xam ne kilifa gi nga xamante ni moom la yàlla teg réew mi ci loxoom ñu suñu mag di suñu xarit son excellence président Macky Sall jël ay xalaatam ak yéeneem ak pas-pasam jaarale ko ci ay nit woolu moom ma ñëw mu ne ma ma bëgg nga jiitu ci ñëw lijjantil ma ñu am ndam ndam loolee nag population Mbacké département bi yëpp yéen lay waxal kon ci yéen la ñu yónni ñun ak ñi ci àndal ñëpp góor ak jigéen ci sama tur ak turu Serigne Cheikh Bara Gueye mi représenté monde rural bi ci liste bi ci turu Mohamed Cissé mi représenté allié yi ci biir Benno Bokk ci turu Soxna Roqoy Diouf mii nga xam ne moo teewal waa Mbacké ak madame Ndiaye Aminata Diallo ak ci turu Serigne Cheikh Abdou Mbacke suma frère suma xarit nekk ci bi ak honorable Makhtar Diop ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jaarale yitte ji ci ñoom ngir suñu borom mottali kon ci seen kàddu lay wax yéen waa Mbacke yéen département de Mbacke ñu ko waxee Touba ak 14 13 yi ci yëpp yëpp ñu ci biir. ñoo ngi yëkkati suñu loxo di leen tàllal loxo te di leen déglu ci seeni xel ak seeni xalaat ci li nga xamante ni lanu jëm ci suñu kanam suñu borom defal lu ci ndam yàlla nag am na ko mën na ko waaye li ci doomu aadamay dox ko yaakaar ci yéen guddi ak bëccëg lépp nag loo xamante ni luy tax ndam li incha allah suñu ci àggee ak jàmm ñu am ko ni ko bëggee am am bu rafet yaatu mel xamante ni mooy leeral mbir mi fas na ci yéene si suñu loxo ñëpp di ci déglu ñëpp tey ñaan yàlla suñu borom mu yàggal lañu ci jàmm ak salaam. di gërëm président Badiane ci jëf jii nga xamante ni xam nañu ni doomu Mbacké la te lii monsieur le maire Gallo Ba yi def moom la koy defal mu yëkkati yéeneem dugal ko ci noonu la ñuy appel képp koo xamante ni dëkk nga ci département nga roy ci loolu Moustapha Diop Mbacke Faye yéen ñëpp bokk département bi laxasaayu leen nekk benn jàppale monsieur le maire Gallo Ba te li ñu jëm ngeen laxasaayu ñu ànd ci nekk benn ngir bu ñu yegg au soir du 31 juillet incha ñu mën a taxawaat fii yëg ne am nañ ndam lu leer nañ yàlla nag am na ko mën na ko ngeen koy ñaan si ak Mamadou Fadel Mbacke bi nga xamante ni mooy borom barab bi le 23 janvier fii nga dale woon ci marche ci gaaru Mbàkke bi ñu woteel ñu en masse jàppale ñu bañ nekk tey le maire bi ko it dama tala sama képp koo xamante ne nii candidat ci élection yi ma ne leen kat élection yi la page des élections est dañoo fas yéene tala loxo ñëpp ànd ak ñëpp liggéey Mbàkke kon tey ndaje li lu ko jite tey mooy indil waa Mbàkke ay oto mbalit ak oto vidange oto vidange bi kese war naa a jël en charge salaire yoo xamante ne moom mooy chauffeur yi dë dina jël en taxit wala fiat ak incha ñu am yeneen camion vidange pour Mbacké recette suñu ambition mooy fexe quartier bu ne ci am auto ramassage ordure loolu mooy suñu objectif kon nag damay sant bu baax a baax Mamadou Badiane président FC Bawol moo jël auto bële car be may ko joueur encadrement yi jël oto may ñu ko dolli ko ci liñ def kon nag dama woo képp dëkk Mbàkke képp ku bokk Mbàkke fekk fi baax wala nga dëkk fi nga man dara man bokk ma ci maire yi bloqué kenn dama fas yéene képp dëkk Mbàkke ma waxtaan yow ñaax la nga jëf ci Mbàkke ndax état doyul gala ba doyul waa Mbacké yëpp tey buñ mobilisé woon tamit liñ bëgg ci Mbacké yëpp mënuñ ko am ci benn mandat te li ñu bëgg nag mooy waa Mbacké yëpp def seen maam euh, waa Mbacké yëpp def seen loxo ci liggéeyu Mbacké kon maa ngi sant bu baax le président de la République ndax bi ma ne xale yi Mbacké dañoo bëgg stade bi gaaw pare dana ma dinaa accélérer travaux yi tey jii ku def stade ba war ngaa gis ne liggéey bi mu ngi accéléré wu te fii ak weer incha allah ci yoon jàppalante teg pelouse bi ak la charpente métallique bi couvrir tribune bi pour Mbacké am stade président Macky ñëw fi inauguré ko loolu laa ko wax. dañoo jëm nag ci ay élection élection bëgg mooy dàbbali mooy confirmation. engagement bi waa Mbacké amoon yëpp waa commune Mbacké ak le dama bëgg ñu am une victoire éclatante pour permettre au président République d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale te loolu nag ñun waa Mbacké dañ ci war a jouer sur partition député yële weesu dama waxoon waa Mbacké ne ne bu ñu wootee pour Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall dina am ndam bu ñu wootewul tamit dina am majorité dama bëgg ëllëg bu am majorité waa Mbàkke département bi ñu gëstu bu baax a baax a baax loolu nag jàpp naa ne ñu ci yoon wi ndax président def na investiture yu baax ndax bu jëlee sëñ Galas Kaltom doomu ala sëñ Alaaji Baara Mbàkke sëñ euh, sëñ dëkk fii sëñ boole si maram maram boole si sunu jigéen jigéenu Mbàkke soxna Daba Diouf boole si Matar Diop ci nationale ak it Cheikh Abdou Gaynde Fatma kon ñooñu ñëpp jàpp naa ne ak les suppléants on a fait investiture kon naa di des moo ñu laxasaay ñun ànd liggéey nekk benn xam ne tey jii ñu nii fi ma wax yéen tembe président de la président de la Macky moo soxla moo bëgg am ndam fii ci département kon nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax les alliés ñi nga xam ne dañoo laxasaayu ànd ak l'APR ak la coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp di beral également un remerciement particulier ak a ñi nga xamante ne nii tey dañoo defoon ay liste di laaj Mbacké ndax buñ àggee ci local ku ne ci ñun nga am yéene ci Mbàkke sañ ngaa taxaw laaj Mbàkke kon nag tey bu ma ñëwee tey gis fi sëñ Mbàkke Fay Moustapha Diop ñëw fekk si ñu fi laxaat loo ñëw engagé wu jàppale ñu jombaxoo ñëw tamit ne day ne day bàyyi ñëw ànd ak la personne Benno Bokk Yaakaar jàpp naa ne bu ñu amoon huit mille deux cent ak apport ñi ma tudd ak ñi ma tudd ñëpp jàpp naa ne war nañoo am plus de 15000 voix au niveau du de Mbacké. kon nag Mbacké mbàntaa sama loxo ñëpp ñu amul xaama yàlla kenn dañoo am yéene ci ñëpp parce que yéene ànd ak képp ku dëkk Mbacké ngir liggéey Mbacké soppi xarkanam Mbacké. fan yii di ñëw fii ak ñaari weer incha allah day yokk bu baax éclairage public bi day yokk ndox mi. def quartier périphérique yi ndox Mbàkke bi ñu doon jooy ndox mu naxari bi président de la jox na instruction tey entreprise yi nga war a xam ñi ñi war a liggéey jëlee ndox ma Sadio indi Mbàkke ñëw nañ Mbàkke tey liggéey bi jóge gastro yi pour Mbàkke am ndox mu neex éclairage bi yokk ndox mi de fii ak un an maximum ñetti entreprise yu war a jëlee ndox mi Sadio indi ko Mbacké dinañu àndal na bu mat sëkk kon nag jigéeni Mbacké dañ ñoo des jigéeni Mbacké man awma seen fay muy góor di jigéen kon nag maa ngi baral bu baax nuyoo it ak remerciement bu am fu mu tàmbalee waaye amul fu yem